face to bi ñu doon xaar samedi passé le 28 janvier ñu ajoon ko ndax tiis ak naqar bi daloon ci askanu làmb Gaston production ne duñ leen bàyyi noonu woowaat nañu ñaari mbëri diggante Sa Thiès ak Reug Reug samedi 4 février 2023 ca Sorano daje woon nañu fa nag bu njëkk mu tàngoon lool waaye nag mbokk yi loolu présentation la woon bii nag mooy face to bu mag bi diggante Sa Thiès ak Reug Reug doomu Papa ak doomi Double Less doomu Guédiawaye ak doomu Thiaroye yi mi salle Daniel Sorano lay xewee en direct sur la télévision Futur Média la TFM et les réseaux sociaux Hey Gaston Production kenn du moom lu mu digee de maa ngi ñëw waaw dinaa ñëw waa Kër Pape Seck ngeen bëgg loolu laay def mbokk ngi nii ñoom ñaar ñemente nañu ñoom ñaar bëggante nañu ñoom ñaar xiifante nañu Sa Thiès sénégalais yaa ngi nii nga te ak ñoom. waaw ñu ngi sant ak yàlla bu baax ci julli ci bi sant suñu ñaari waajur di jiite ci kàddu bu ñu génn àdduna ñëpp yàlla na yàlla yërëm xaar la àjjana ñu tëdd hôpital aussi yàlla yëkkati we ñu caab féete ginnaaw yàlla ñu caab féete kanam aussi di ñaanal suñu papa sëñ Modou Niang yàlla na ko yàlla yërëm xaari ko àjjana ndax ku ne xam nañu man de bu dee benn combat la tëggal na ma dëgg la moom njëkk a yóbbu combat Casamance ma doon bëri di nuyu ñu fi toog ñëpp suuyaka Pape Seck yi di nuyu Makan Laxaat suñu mbër yi suñu mbokk mbër yi sa laay wax di nuyu sama adversaire di nuyu Sénégal monde entier rawatina Touba Tivaouane Kaolack Ndiassane Fatick bàyyi ñu fenn di rawatina di nuyu sama sëriñ sëñ Abdou Karim maa ngi nuyu aussi sama sëriñ ak kan sama waajur bu jigéen sama yaay maa ngi ñaanal Sénégal ñëpp am kooku loolu mooy nuyoo Sa Thiès Reug Reug ñu bàyyi la nga nuyoo yi waaw onze billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sante yàlla bi ñu selante bi di ñaanal sama papa ak sama tante yàlla ñu yàlla xaare àjjana firdaws ak mboolem jullit ñi leen fa fekk ñu fa fekk di ñaan senegal yàlla na fi jàmm yàgg di nuyu assistance bi yëpp ah, di nuyu sama mbokki mbër yi maa ngi nuyu sama adversaire di nuyu waa Thiaroye Géej ah, fukki penc ak ñaari maa ngi leen di nuyu waa Bargny Tëngéej Mbaaw ah, Ndaayaan Tubaab Jalaaw ñépp maa ngi leen di nuyu mu limee dama ci waa Yoff ah, waa Wakaam maa ngi nuy ñëpp mu limee dama ci waa surtout waa Thialane aw seen fay waaw maa ngi nuy waa Thialane Dionewar Niodior Falioso Bassar Basso ah, Nangan Sam Mar Fafaxo Mar Sulu Mar Lodj ah waa Fimela ah, waa Ndios Mon waa Caajaay maa ngi nuyu si combat bi ak waa waa Gandiaye Kaolack ah maa ngi woo daal mu limee daal damay jub maa ngi woo ñëpp forme ah. spéciale la Sa indi forme spéciale la Reug indi booy xool nuyu bi sax booy xool bi ñu koy def dañ koy defee ak xool pas parce que kenn ku ci nekk da nga mere moromam mais man mii leen jege xam naa ni ñoom ñaar dañoo xiifante mais léegi li ma bëgg a seetlu dama ko seetlu rek dama seetlu nii Reug dafa teg siwo bu xonq gàllaaj yi fi nekk yëpp xonq ma gesu fii gis ni Sa dafa teg siwo bu jaune mais li si nekk dafa xonq Sa Thiès siw bi lan la dañ ma ko jox rek xamoo ci dara sama entraînement rek ah li ci nekk nga koy ëpp waa ji ci suba ba léegi naan xamuma ci dara waaw li ñu ma sant rek lay def maanaam ëpp ko non non liñ ma sant rek liñ la sant moom nga def ci plateau bi mooy ñu gis ñu yem foofu rëg rëg lii lan hmm. lii maa ko defar yow yaa ko defar waaw maa ko defar noo ko defar rek dara maa ko defar kii la nii rek décor ah, waaye yow lii décor la waaye Reug Reug may ñu tuuti ñeex waaye lii du décor rek Reug Reug waxal sénégalais yi lii lan la lii du dara lii décor la maa ko defar waaw ah, déggoo ma waaw léegi Reug Reug li ma la bëgg laaj mooy sa digganteeg Sa Thiès lu jàmm ak salaama ah, moom moo si ne ndax tey jii mooy li may wax rek euh, ndam li génnul Sénégal dëgg you la lamb nañuy def moom may may xaalis maa koy may xaalis you yi ñoom nañ gérer wàllu supporter xam nga lu expliqué ndax tey jii ak lu mu mënti demee maag Sa ñooy nekk si géew bi hmm. kon violence jaru ko très bien xam ma expliqué waaw violence jaru ko moo may may xaalis maa koy may xaalis waaw damay ñaan yàlla suñu borom rek may man dam hmm. Sa Thiès seen diggante lu ci waaw jàmm ak salaama ah. Lamine ki la jox xëy fay la amoo fay ma ma jox xëy mais sama adversaire rek moo ma fay hmm. te su ma bëriwul tam xaalis boobu mën naa am na mën naa ko am ci leneen wala ma feneen mais hmm. lu ci mais jàmm jàmm ak salaam la su weesoo làmb bu ñu paree dañ seeki jàmm ndax bëri na tey nga gis safaan bu amee tey nga gis mbër yëpp ay dajaloo fekk seen morom bu jàmm amee tamit aussi da nga gis ñoom ñëpp ñu fekkante xëy na làmb na dafa baaxoo ambiance xam nga yan saa yi supporters yi tamit ku ne xam ni si far moo far ba fi métti waaw mais jàmm moo ci am ñaan yàlla cinq yàlla may ma ndam ci kaw Reug Reug vaccine ana gaal gi gaal gi waaw mu ngi mu ngi géejawaay xam nga ah da nga géejawaay mu ngi géejawaay ba léegi non xaaral ci yëpp ñëpp ñu nga waaw mu ngi ba léegi non yow waaw waaw xaaral dama lay wax sama pare gu sama question yow da nga dugg juróom benn yoon géejawaay benn sans verdict nga fa am bii mooy septième fois nga dugg géejawaay kon juróomi mbër yu dëkk géejawaay ñu ngi sa biir gaal gi nga bàyyi ko géejawaay est-ce que loolu du risque. non loolu du risque ndax boo xoolee euh, ñuy dëkk ñuy euh, li may wax nii euh, ñu doon lébu ñoom ñoo koy xam. daal sama verdict bi moo Clinton la li may bëgg wax nii. waaw maanaam ñu doon lébu ñoo koy xam. waaw. <laughs> gaal gi dama ko dott ñaari ñaari dama ko dott ñaari guum. dama ko dott. ñaari guum laa ko dott. ñaari guum la dottee sereeka ñaari kaabal. ñaari buum ak ñaari câble. laa ko seree. waaw kon loolu dëjee ci katu du yomb. ma nga biir géejawaay fan la nekkee ci géejawaay. mu ngi géejawaay si si kaw noonu rek. soriwul. sori na Mali bi non soriwul tafis gi noonu mu ngi foofu ma ser rek. gaal gi nu mel couleur bi pour bu ko ku dem xooli. moom gaal gi yenn saa yi day changé doon ñuul yenn saa yi mu doon weex. mais ana mbër yi nga daan ñu ngi ci biir gaal gi. ngi ci biir gaal gi gaal googu ah, nag moo tax man gëj naa gis Elton gaal googu nag man gëj naa gis guy gi gaal googu nag waa xaar may su yooyu yëpp gën gën njëkk a yënga ci biir gaal gaal googu nag non mais Sa Thiès li kii li mu wax dafa garaaw sama ay copain rek la jël dugal leen ci gaal nañ leen génnee seen mbokk yi gis leen gaal googu nag bëgg naa kii dina si dugg si kattan suñu borom kii te gëm naa ni da siy dugg incha allah nga li wax ne gaal gi fi mu nekk daf ko saree ñaari buub ak ñaari kaaba déggate naa ko Lamine waaye Lamine wolof Njaay neen lu loxo def loxo mën na ko dindi lu tax li fas loolu ci loxo. waaw loxo mën na ko feccati. li daaj gaal. Eh, waaw na daaji gaal. lu daaj. li daaj gaal. mën na daaji gaal mën gaal. ak i gaalam yi ngay daj. <laughs> am na gaal yoo xam ne. waaw doo wax ak moom ngir yàlla. am na gaal yoo xam ne. man dama li may xool moom dama xaw a tiit. yoo xam ne. li nga daj yombul mën nga see nekk trois trois mois du daj. du dajee boo yoree marto. waaw xanaa déggoo ma. gaal googu lu ko daj yombul mais mu ne lu ko daaj li ko daaj mën na koo daj non moom sax dafa changé wax nee gaal googu day day jël day jël gaal gi maanaam da koy daj defee ki café waaw waaw <laughs> waaw danga changé waat ah. changé wax de ah. xam nga changé mu wax déedéet wax jooju yegg saguñ ci hmm. da ngaa posé question mu tontu waaw nga laaj ma ma tontu loolu. waaw waaw mënoo léegi moom ci biir wax dafa la laaj. a ma ah. tuuti ma ñëw rek. waaw moom laaju ma. <laughs> dafa ñëw andiwaat débat boobu. waaw dama ne mënoo maa posé question dem ko teg wala sama secteur. waaw fu mu toll nii booy naan. yéen a ngi fois dañ koy naan. mbër yi mbaa génne nga leen. man waxuma yëf mbër. ah ah ah xam nga ah, moo tax dafa am yoo xamante ni boo ko cité ëllëg sax mun na ñaaw ci wax. dëgg la man ak moom ñuy bëri. te moom laa war a waxal moom wax ak moom. ci respect ñi mu daan gënuñu ko gënuñu leen. Hmm. daf leen a waroon daan daan leen. war a bëri daan leen daan naa leen. man fàtte naa sama victoire man pour man bii may sama premier combat. Hmm. lu tax lu tax man loolu laa gëm. maanaam loo jàll rek. leneen roi des dugg na suñu kër ñaari yoon. Hmm. ñi ko jël yàllaa leen ko may. sama papa la sama mag la. sama papa mbër la sama mag mbër la. ñoom ñoo xam man sama bopp laa gëm. yow gëm nga ni mën nga nekk roi des arènes. c'est pas première fois man li ma li ma gëm ba yegg si fii su ma ko gëmulutee ma tekki sama ngeen ma dem seet leneen loolu wax wax wax yi leneen la dama ne la ci ANCAR respect laa koy jox respect la may jox wax bu jotee dinañ wax dinañ kaf dinañ ree luñ ci wax loo xamante ni dafa ëpp rek ñu ngi jégalu parce que tamit bul fàtte lii nii tey fi ñuy waxee nii ñëpp a ñuy déglu muy mag di ndaw di góor di jigéen man bu doon sama sax heure bi séance dëgg la mais mag ñi dañuy nelaw war na ñoo nañoo déglu war nañoo seetaan combat bi jaay na boppam ba pare luñ fi wax rek waxati la dëgg mais mais li ma bëgg laaj Reug Reug mooy yéen ñaar lan moo leen boole parce que dafa am mbër yoo xamante ne naan palmarès daan ko pour dem ci kaw moo ma boole wala xaalis moo leen boole wala lan moo leen boole yéen ñaar ci lamb moo ñu boole lamb leen boole yéen ñaar lamb moo ñu boole waaw da war a daje daje war a daje daje pour dem fan ndax bi biñ may biñ ma biñ ma koy jox man wax xooluma sax maa ngi xool feneen fan nga xooloo. non maanaam fu ko se fu ko fu ko romb. ko raw foofu laa xooloo. waaw teel micro bu baax. xam nga lu ma expliqué. Ah. loolu la quoi mais lamb moom moo ñu boole. lamb nañu def bu jeexee jeexee. moo leen boole. Sa Thiès yow lan moo leen boole yéen ñaar. lamb bu boole. xëy na nga wax waaw. la cinq moo ñu boole. waaw non dafa am ñoo xamante dañ naan xaalis moo ñu boole wala beneen jël combat moo ñu boole moom nee na moom d' accord d' accord ni moo leen boole. mais regret bu arbitre sifflé da ngay dem wala da ngay xaar Sa Thiès wala da di daje. waaw man daal boo bëggee dégg dëgg lamb laay def jarul nga may wax naan li nga doon def rek laay def man mënoo maa waaxu war rek maa ngi ñëw dama ne la lambu laay def su dee nga lamb laay def hmm. lambu lu mu laaj ma def ko si kàttanu suñu borom hmm. gis maa ngi lay dégg lamb ji bu jëree maanaam arbitre la prime man dox si koom damay dox si koom. bu ngeen dajee. duma ko daan. nga duma saa Thiès bu ko xanaa dégg nga mu jour ba bu bu bu ko laajee dama koy def. ci micro bi. dégg nga waaw. waaw bu ko bu ko laajee dama koy def. ndax lamb laay def li ma waxoon moom dama koy def tawaat. dix maa ko mën fuuf. yëkkatil micro bi. laa la. maa man Sa Thiès fuuf maanaam ngeen bëri fukki yoon fukki jël ma daan ko fukki jël yoo xam ne bokkul est-ce que adversaire yi nga doon bëree ak Sa Thiès benn la bi may jël Elton waaw lan nga waxoon dëgg la hmm? dëgg la bi may jël Gris 2 dëgg lan lañu waxoon dëgg la yëkkatil micro bi nest dëgg la voilà mais yooyu yëpp passé na kii moo fi ne man këlu këlu jinne laa yor xali junne xali junne man lu nekk nekk sama kanam laay séntu te kii moom moo xam ne ñu am na combat. te dix combats yaa ko mat. Sa Thiès le leer dix combats na moo la mat mu le dix jëll yu bokk. am naa wax yoo xam ne mun naa ci tontu même yoo xamante amuma sens ndax xamu tax su ma doon tëdd di nelaw sax gëmuma kii mën na am ci man jaax. boo doon tëdd di am ci yow. jaax gëmuma ni kii mën na am ci man jaax. yaa ma dégg xanaa seetaanoo eh, eh, combat MMA bi MMA xaw ba ni muy def gars yi loolu benn facette la non dama koy wax dama maa tere ma maay tontu si waaw moo la tere ma wax gis nga fii du MMA du karatéka du judoka du yataka fii lan la Sénégal rek ngay gis sport làmb ñu dem wër koo xam ne xamul làmb dem ci beneen langage boo xamante ne ñëw andi ko fii di ko ci poser question waaw yaa ngi dégg lii lit frappe la ku ci judd ñun ñii ñëpp dañ ko fay fekk bokkul ak benn sport bi mu fi tudd. mais ni mu def Elton def ko. gis nañ fi Bruce Lee gisoon nañ ko fi lan la. karateka ok. gis nga tey carrière fu mu toll. Tidiane Faye kenn noo ko dàq bëre. amul am na yeneen mbër yoo xamante ne tey mën nga leen cité fii ci àdduna. Hmm. ñu dàq bëri junni yoon. mais fa seen carrière toll dafa ñor a mais man li ma jaaxal mooy. dix combats mu daan la dix jël yu bokk. dara du la ci jaaxal. ndax loolu dara du ci am point final. beneen bi ci des moom maa ngi ñaan yàlla rek ci yàlla may ma ndam wax ju bari gi nag jëf ju bëri gee ko mais Sa moo kan moo kan moo wax wax bu bari moom. Lamine dooma jaxase kii. dooma jaxase kii dooma jaxase àll non non non non dama wax ju bëri sama wax ma dama ko wax dama ne. da wax da weer géej sànni. weeruma géej. loo def man nit laa. togguma géej gi bàyyuma géej gi sama dama wax ju bari ji jëf ju bëri ji ma ko gënal man sama bopp maa da koy bàyyeeg wax neen da lay bàyyi ak wax ji dégg nga dégg boobu ab lébu nga dégg nga wax ji. non damay bàyyi wax ji. waaw anyway amul problème man ku ma xamal ne ku ma xam xam ne man ay waxu bëri nekkul ci man. mais daf ñu tuut te bëriwul. sama mbagg bi day métti. lu tuut te bëriwul. la cinq si kàttanu suñu borom. Hmm. luy xew sa jéego maa dirigé. yow yaay dirigé maay dirigé yaay takk barasa maay dirigé laa la wax mu soobee suñu borom mooy yàlla ñu yàlla may wér gu yaram ak gudd fan moom te maa ngi koy ñaanal mu am wér gu yaram ak gudd fan dara bañ kaa jot wala cinq yàlla buñ ñu dara jot si rooba man nga maa yabe fii la mais si rooba bu ma ba tourné. Ah. boo wan na sama bët yi. Ah. di nga leneen lu të mais problème bi mooy liir daana koy indi de. non non Lamine. la bu dul ci dara xaaral xaaral ma naan. dégg eh, eh, dama koy tënk Lamine xaaral moom dafa wax la am importance. waaw ñëw dañ koy ci la am importance. ñëwal waaw yaa may dégg. ñëwal liiru jaan maa ngi koy nuyu au passage suñu kilifa la yaa may dégg respect mi moom ak xaadim grand xaadim Ndiaye nan leen cadré ci cadre respect lu weesu loolu man ak moom ñooy wax nañu bàyyi suñu wax ñu ñaar. Hmm. Hmm. waaw maa ngi lay nuyu bu baax. Père Khadim maa nuyu. waaw maa ngi lay nuyu baax kon xam nga ni kon ñoom ñaar fi combat bi fi combat bi toll liiru ak Khadim dañ ko faa yóbbu. non non waaye bëgg kii bëgg lool bëgg lool Sa Thiès muy liiru jaan kii bëgg lool euh, euh, euh, Khadim njaay bëgg lool Reug Reug te muy dëgg ci moom boo xoole nga xam ne ñoom yóbbu nañu combat bi foo xamante ne nii. nañu waxante dëgg combat ah, ah maa ngi ñëw. xaaral man maa ñëw dama ne. Ah. ci ñu mel noonu. xam nga lan moo tax. war na ëpp na dix ëpp na vingt ans. mu topp ci ginnaaw mbëri rakkam yeeg yëpp mu njaboote téye. yaa ngi may dégg man waxu waxi tey. man waxi démb laay wax. dëgg voilà man lay ñaanal yàlla guddal sa fan. yow ak ñi nga xamante ni ñëpp ñu ngi sa ginnaaw. man maa lay ñaanal loolu yow mais est-ce que. Père Khadim waaw Père Khadim. waaw tey. Hmm. yàgg na maa may ay deux cent ay trois cent. Hmm. yàgg nañooy wax booy boo góorgóorloo làmb ji am nga si place mm. bi ma doonee booy ne may lañ laay lekk xaalisam mm. kon dama koy ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm mm. waaw ok Sa Thiès est-ce que li def ngay def maanaam bu arbitre soufflé nga dox sa kaw adversaire loolu moom nit mënu ma mënu ma ko xañ nit mënu laa xañ arbitre soufflé nga dox ci kaw Reug Reug man yëfi jinneeg yëfi rawak ngay mër mbërloof di balbal Lamine xaalisu laa mu lañ ma ngénte moom nag. man laa wax man en personne sama papa laa ah. sama papa du ma ko méngale papaay kenn. mu ak papaay gi ma xam man sama bopp laa xam. yaa ngi may dégg sama papa rek lañ fi topp ñu ne mbër ba na commune pour mu daanu yàlla ko yàlla yërëm xaare ko àjjana dama koy ñaanal yàlla loolu laa ko fi desal yaa ngi dégg leneen lu ci des na man ak moom la kii mënul diriger làmb ja maa ngi ñaan te du mos a diriger nag xanaa daanu lay diriger waaye du dab daanu lay dirige daanu rek lay dirige <laughs> dañu yegg ci ak jàmm papa papa kan yàlla na ko yàlla xaar a amiin yaa rabbi kon daf la bëgg a wan ne ñaanal papaam yàlla na ko yàlla a ajjana ndaw suñu père euh, sëñ Modou Niang ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm ñi ma génne si la bokk ndax dëgg na sama boo xoolee yaa may dégg waaw kon dañ koy ñaanal yàlla suñu borom xaare ko àjjana firdawsi yàlla na suuf oyof si kaw si barke Seydina Muhammad léegi combat bi le cinq la ministre des sports lañ ko tuddee Reug Reug ñan ngay woo waaw di woo waa waa face to face bi ñu doon xaar samedi passé le 28 janvier ñu ajoon ko ndax tiis ak naqar bi daloon ci askanub làmb Gaston production ne duñ leen bàyyi noonu woowaat nañu ñaari mbëri diggante Sa Thiès ak Reug Reug samedi 4 février 2023 ca Sorano daje woon nañu fa nag bu njëkk mu tàngoon lool waaye nag mbokk yi loolu présentation la woon bii nag mooy face to bu mag bi diggante Sa Thiès ak Reug Reug doomu Papa ak doomi Double Less doomu Guédiawaye ak doomu Thiaroye yi nationale Daniel Sorano lay xewee en direct sur la télévision Futur Média la TFM et les réseaux sociaux Hey Gaston Production kenn du moom lu mu diggee